mbokki taalibe yi màggal gi yegsi na ministère bi ñu dénk wér gu yaramu askan wi jaare ko ci service national bu éducation ak information pour la santé moo dellusi di leen fàttali ñuy raxas loxo yi ak ndox ak saabu saa su ne ak it ni mu waree rawatina bu ñu génnee ba duggaat ci suñu dal yi bala ñuy lekk ak it bu ñu génnee ci bërëbu suturlukaay yi di tàngal ñam yi ba mu tàng jër laata ñuy xewlu di raxas légumes yi ak fruits yi ci ndox mu am ordisawel ñu di leen fàttali ni mbas mi mu ngi fi ba léegi kon nag nañu farlu ci ñaq yi màggal gi dafa yemoo ren ak nawet nañu gën a setal suñu dëkkuwaay yi ñu ngi ñaax chauffeur si ñu daw ndànk ci tali bi ngir am yeneen i leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara ministère bi ñu dénk wér gu yaramu askan wi moo leen di ñaanal màggalu jàmm ak salaam